في لسون برام سبحانه وتعالى بتاي دي وحيرك ني وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون واحنا دك نينا وهو موم يالا الذي موي كيغا خامني يتوفاكم مولين دي نلاوال بالليل تي غوديغي wa yaalama te dana xam maa lépp loo xam ne jaraxtum fàggu ngeen ko bind nahaari ci bëccëg gi suma ginnaaw boobee mu leen nelawale ci guddi gi itam yabaasukum fii moo leen ci yee bañ yeewuwaat mën a nekkaat ci kaw suuf di dund li yuqdaa ngir dee fi àtte nag ajalun musamma beneen àpp bu ñu tudd boo xam ne nag moom du nekk nelaw ak yeewu waaye dee lay doon aaya bi mu fassiroon yi wax nañ ci détails yu bari waaye yaa yu gudd yooyu du ko jar li ci gën a not rek mooy mooy li ñu leen wax nii maanaam am na beneen aaya boo xam ne moo koy gën a leeral wax gi wax ne allahu yatawafal anfusa ina mawtiha wax ga wax ne moom yàlla mooy faat bakkan ci bu dee daa ci teg ne wëllati lam tamut fii manaamiha ak ba nga xam ne moom faatuwul ci ay nelaw rek la nekk day yeewuwaat kam na mu faatu nag kooku bu nelawee it mën naa téye ruuxam moom mu jaare fa ndax dafa war a faatu mooy fa yum lati qada alayha al mawt kam na mayee nag wa yursilul uxra ila ajali musamma moo tax ma ne la wuxu moom allazi mooy ki nga xam ne yatawaffa yatawafaakum moo leen di nelawal foofu doo ko tuddee moo leen di rey waaw ndax kooku lim ci jublu doonul kim rey ngir mu dee waaye mooy kim nelawal rek tam war a yeewu moo tax ma ne tawaffaakum bil layli moo leen di nelawal ci guddi gi waaw nelaw nag danañ ko def guddi danañ ko def bëccëg waaye dafa gën a noté ci guddi gi rek moo tax mu waxee noonu waaye lim bëgg wax rek mooy yàlla ci boppam mooy nelawal nit ñi wa yaalamu ma jaraxtum bin nahar mi nga xam tam lépp loo xam ne ñu ngi koy fàggu ci bëccëg gi mooy suñ nekkul di nelaw itam suñu yëngatoog suñuy dal ak suñuy jëf lépp moom suñu boroom xam na ko wa yaalamu ma jaraxtum bin nahaar léegi nelawal googu mu waxoon la ne suma ginnaaw bi mu leen nelawalee ba pare it yabxasukum fiihi moo leen di dekkilaat masalan moo leen di yee ci nelaw yi waaw moo leen di yee ci nelaw yi ngir ñu yeewu jëm nag ca dogal ba nga xam ne moom digub deela li yuqda ajalum musamma mu ñuy àtteel ak dee nag ci beneen délai boo xam ne moom dat la boo xam ne datu faatu la ajalu musamma yi beneen dig boo xam ne bu mu tudd la boo xam ne su ci nit ki eggee nag moom fanam mu jeex lay doon du nekk ne nelaw ak yow waaw su ma ginnaaw ba loolu lépp jàllee it ilihi ci moom marji xukum su seenu delluwaay ilihi jëm na ci yàlla su ma ilihi marji maanaam su ginnaaw loolu lépp itam marji xukum seenu delluwaay ilihi jëm na ci yàlla loolu la waxin la woo xam ne day tëj mbir mi su su jiitalee ilayhi xam nga mënoon ne suma suma marjiukum ilayhi waaye bu ne suma ilayhi ne marjiukum day wane ne dellu gi ci moom yàlla képp ngeen di dellu waaw su ne suma daal di jiital ilayhi door cee teg marjiukum mooy wane ne dellu gi ëllëg nag ci yàlla rek la benn delluwaay képp ngeen am ëllëg muy sunu borom subhaanahu wa taala loolu danga nga gis mu koy waxe nu bari sax ci alquran kon li wax fii rek mooy yàlla daal mooy ki nga xam ne moo leen nelawal ak di leen yee ci nelaw ngeen di yeewu di doxaat seeni itti ba ba di egg na ci digg boo xam ne diggu faatu la egg ci faatu it moo koy faat waaw waxu moom yàlla alqaahiru moom rek mooy aji not ji fawqa ibaadihi ci kaw ay jaamam alqaahiru ji noonu mu ko maarifaale def ci alif ak laam bu ne woon wa huwa qaahirun fawqa ibaadihi dañ naan subaa yàlla kat moom mën naa not ci kaw jaam ñi waaye day mel ne kaneen nit mën naa not ci kaw jaam ñi waaye bu ne alqaahiru nag mooy moom képp mooy ki nga xam ne moo not fawqa ibaadihi ci kaw ay jaamam waaw wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi wa yursilu alaykum xafadatan wa yursilu mooy yabal alaykum ci yéen xafasatan way wat mooy yàlla mooy ki nga xam ne mooy yebal ay malaayika ci nit ñi ñoo xam ne ñoo leen di wat malaayika yi yàlla yebal ci nit ñi itam du rek raqib ak atit nit nit nit kenn ku ne ay malaayika yu bari ñooy liggéey ci moom kenn ku ne ak la tax suñ borom boole ko ak moom xafasatan malaayika yi nga xam ne suñ borom daf leen yebal ngir ñu sàmm nit ki nga xam ne lépp lu suñ borom dogalul mu war a dal nit ki malaayika yooyu duñu sàggan bam di ko dal waaw ñoo ko war a aar ba mucc ci lépp loo xam ne yàlla daa dogal mu war caa mucc nga xam dañ koy sàmm loolu bokkul ak malaayika yi nga xam ne suñ borom daf leen yebal ci nit ki ngir lekkam ak naanam nga xam ne lépp luy wërsëgam ci kaw suuf ba ba muy faatu ñoom la ko suñ borom dénk ñooñu itam bokkuñu ak malaayika yi nga xam ne daf leen yebal ci jaam ñi ngir ñu bind seeni jëf muy kiraaman kaatibiin nga xam ne ñoom bind jëfi jaam bi rek moo leen boole ak moom luñ jëf ci lu baax ña koy bind ak bu ñu jëfee ab safaan tam ña koy bind malaayika yi nga xam ne sax suñu borom daf leen a boole ak ñi ngir ñu saytu seeni mbir sax balaa kenn faatu li ci ëpp da leen gis danañ dikk tàggatoo ak yow malaayika ñoo yor ba daa faatu danañ dikk wax ak moom bu demee ba toll ci war faatu danañ dikk ne ko nun day ci njëlbeen gi sax buy egsi bu malaayka mi ñëw ci moom da ko xam daf koy laaj yow kan mu ne ko man day maay jëmm ji nga xam ne lépp lu mas di dugg ci sa gémmiñ nga di ko jëfandikoo ciw ñam man la ko suñu borom dénkoon maa ko daan saytu ba mu jàppande ci yow tey nag pàkki suuf yëpp dama ko wër ba mu daj gisuma lenn loo xam ne yaa ko war a jëfandikoo ma xam ne sab digg daa jot ma ñëwoon di tàggatoo ak yow waaw foofu daanaka bu fi nit tollee dootu reesal dara ruy bi gën a yomb naan sax suñ ko ko leeloon suñ koy bàyyee bu dëngaloo bu dëngalee ba bi lépp tuur ndax amatul lenn lu mu war a lekk ci kaw su luy wërsëgam jeex na nit kuy bëgg a faatu foofu mbir yu baree baree bare mi ngi fi yu fiy xew yoo xam ne ki ki jànkonteeg moom rek a ko xam ak yàlla moo tax mu ne wa yursilu aleykum xafasatan yàlla yabal na ci yéen malaayika yoo xam dañuy dikk di di leen wat waaw fi mu ne malaayika yi nga xam ne dañuy wattu nit nga xam ne lépp lu ko wërta laal da ko laal waxuma nit ku jóge fee namm laa lor te sóobu di yàlla ñoom duñu seetaan kooku lor la waaye yeneen yi gën a suufe yooyu yi gën a ñàkk solo yooyu sax te suñ borom dogal warul laa laal sax duñu seetaan mu di laal dama mel nii toujours daf may yomba fàttali euh, suñu mbokk mu wàññiku woon woo xam ne waxtu guddi la wàññikoon ginnaaw timis jàpp gee nga xam ne maanaam waxtu wi ñu wootee wax ne diw dafa wàññeeku ma ànd ak ma àndaloon dem fa nga xam ne ca sens ñun ñoo fa njëkk bi ñëwee ñu ngi ko fekk ci ëtt bi fi mu toogoon doon nga xam ne am na laax boo xam ne moom moo ko doon toggal boppam reer nga xam ne laax bi fourne bi sax fayagut da ngay gis ne lii lépp léegi lañ ko doon def nga xam ne borom bitig bi ci koñ bi sax daf koo jaaxal ndax nee na man maa ko jaay suukar léegi nga xam ne ko dafa mel ne bi ñëwee ñëwee sottal laax bi ak bi mu ci jëfandikoo ak bi mu nelawee rek benn la ndax diggante bi lépp lu gàtt la xal yi fayagut laax bi seddagut waaye fi sens ñun fi ñu ko fekk mu tëdd te àndatut ak bakkanam maa bi ma niitee làmp bi maa ngi gis euh, sànqale yi fees dell biir bakkan yi di du di fu ne sànqale yi dafa jaar ci bakkan yeeg fu ne léegi loolu li muy wane mooy nit bu doon dund fii nii masalan tey foofu mënoon na faa nelaw ñetti waxtu te sànqale yi dugg ci bakkanam maanaam nit kuy dund nii te faatuwut mën naa nelaw lu yàgg te sànqale yi duñ nekk di ko di dugg ci ay bakkanam ak fu ne ñu fay dugg ak génn la tax ñu mën loola boo fekk na roo gi dañ na malaayika yi ko daan saytu itam ci wet googu dem nañ moo tax maanaam rab yu ndaw yooyu door a am accès ci mën a yéeg ci moom ak di mën a egg fenn fi ci moom pour wax la ne doomu aadama am na yu mbir yu bari yu ko suñ borom booreel yu koy saytu ci lu bari lu ko dal rek daa fekk mu soob yàlla te fekk loola waroon a am waaye ñi ko suñ borom booleel ñu koy aar ci lu ko wër te dal ñooñu duñu sàggan ci li ñuy def benn yoon kon doom doomu aadama ku itteel suñ borom la mbiramit lu itteel suñ borom la yàlla aj na ci mbiram ci ci moom mbir yu malaayika yu bari yuy liggéey ci moom te bokkuñu lu ñuy liggéey ci moom xataa isaa jaa ahadukumul mawtu nag tawa fatxu rusuluna xataa isaa jaa xataa saa boo xamee ne dikkal na nag ahadukum kenn ci yéen al mawtu subaa moom tawa fatxu daal di koy faat rusuluna suñuy ndaw ndax waxum ñoom ndaw ñoo ñooñu nga xam ne ñooy faat nit ñi di malaayika yi rocc ru yi laa yu farritoona duñu sàggan ci loolu xam nga dafa doon wax léegi ci ginnaaw foo xam ne dafay nelawal nit ñi ak di leen yee waxtu wuñ nelawee suñ borom moo ñu nelawal suñu yewoo moo ñu yee muy wax nag ne bu ñu eggee nag ci ajalu musamma bi mu doon wax muy dig boo xam ne faatu la su boobaa nag suñuy ndaw ñooy dikk muy malaayika yi nga xam ne dañuy dikk na ngir jël si ruuxam waaw te loolu liggéey la boo xam ne sunu borom mi ngi ko sant sayidna israil alayhi salaam Azraayil mi ko suñ borom sant itam dafa bind ci jëmmam ay malaayika yu baree baree baree bare ci ci ci ci ci moom yoo xam ne ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey boobu moom Azraayil itam muy ko suñ borom kàttanal kàttan goo xam ne mbir yi lu yomb la ci moom te lépp a ko jege dara soriwu ko ci suñ borom amal malaayika yu bari yoo xam ne ci moom la leen bind ñu koy taxaw ñu koy ñu koy jàppale ci liggéey boobu ngir mu gën a yomb nga xam ne koo xam ne tool na ci war a faatu lu mat juróom-ñaar fukki malaayika mën nañoo jiitu si ci moom yoo xam ne fukki malaayika yu ne cib cër la ñuy ne lañu la ñu toog ngir ñu mën a traité roogi ba génnee ko suñ demee ba toll ci war a génnee roogi bam ba mu egsi ci bunt bi nag fi ko waa Israël war a jëlee da koy yóotu rek fa toog ci gàngunaayam ga daf koy yóotu rek bif ko fa mu nekk ma nga nekk ci genn ron garab gu mag goo xam ne garab googu képp kuy dund rek am nga fa xob woo xam ne sa tur lañ ci bind li fekk nit kaa ngi dund xob waa ngay naat di lang saa bu nit ki toolee ci war a faatu xob ba dafay tàmbali di lax bu xob ba laxee ba tàbbi ci loxoom mu xool ko xam ne kii diw la doomi diw ak diw moo war a faatu suba am na malaayika yu muy yebal yu koy jiitu ci jëmm jooja ngir traité gi ba egsi fi mu ko war a jële moom mu door ko yóotu bifro gi te Asraayil te ku ne ruuxu maanaam nit ñi rek la yor maanaam lépp bépp lépp lu yor bakkan di nooyi di dund rek maanaam dundam gi ak deeyam gi dee googu moom moom la ko suñ borom dénk la koy faat moom la ko suñ borom dénk loolu ajuwul rek ci doomu aadama yi ba ci xar yeeg bëy yi dund sax lépp lu yor bakkan dund rek loolu moom lañ ko dénk te suñ boroom itam di ko xereñ koo xam ne foofee Seydina Israel nekk ca asamaana su juróom benneel sa ca sowu ba suñ boroom dafa amal jënn jëmm ju yéeme ju doy waar xam ne jëmm ji melokaanam dafa lay mel ne ku lay jox mel ne da jox melokaanu mel ne aw fas masalan waaye jëmmi nag ay bopp ay bopp lépp loo xam ne luy dund la rek maanaam amee na bopp bu mel noonu lépp loo xam ne lu yor bakkan la di dund moo xam rab yi ci ji ci ci ci jéeri ji la moo xam ñanaaw yi naaw ci kaw moo xam rab yi ci biir géej gi waaye lépp luy dund ci rab yi géej gi ak jéeri ji ak jaww ji rek jëmm jooju amee na sa bopp bopp bu mel noonu yore na ko su dee loola dafa yore laaf yor na laaf yi mel noonu su dee yore tànk noonu su yoree genn noonu nga xam ne maanaam su ma koy gàttal li ma bëgg a wax mooy mboolem li yàlla bind ci lu yor bakkan di noyyi nga xam ne dafa am jamono bu mu dund am jamono bu mu war a dee loolu lépp représenté wu na ci jëmm jooju ma lay wax mi ngi ci moom te jëmm jooju Sayyidna lu moo koy commandé te mi ngi jàkkaarloo ak moom. loolu fi li nga fiy déggee mooy kon dafa mel ni mbindeef yëpp dajewaat dañ ci jënd jëmm jooju kon dara soriwu ko ci te moom mooy commandé jëmm jooju waaw. lépp mënee su ko leeral waaye pour wax la rek mbir yi ni mu ko yombe mbir mi li muy rëy rëy li ko yàlla dénk liggéey bi mu ko dénk li muy rëy rëy lu yombale ci moom. bu fekkee nag ruuxu gi nga xam ne moom la ñuy jël si dafay nekk euh, nit ba noppi nekkoon ku gëm yàlla du jullit du ku baax di ko texe danañ ko lëmas ci mbalaan mu nooy taxee ngët jëw ak moom kaw bu fekkee ko texee dala nag ci mbalaan mu xasaw te ñagas ci la ñuy lëmas ruuxam jëm ak moom suuf liyaasu billahi taala moo tax ma ne waxum laa yu farritun fi ne loolu tax ma ne rusulu naa noonu mu ko defee jàmm rusulu naa suñuy ndaw xam nga Israayil dañ ne la mooy rocc yi te xam nañ ne kenn la waaye nag yàlla def ko booleek malaayika yu baari yoo xam ne ci ay leeram la leen bind rëy ci kaw ñooñee nag moo tax mu jëm ko ne rasuluna malaayika yi nga xam ne moom ñoo ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey boobu dañuy mbooloo duñu kenn duñu ñaar moo tax mu ne rasuluna daani waxum laa yu faritun mu ne summa ginnaaw ba nag bu dee amee ba barsàq am ba dekki ëllëg yowmal qiyaam am danañu leen delloo ci suñ boroom moo tax mu ne suma ginnaaw ba ruddoo ilallahi ruddoo ilallahi ñu delloo leen jëme ci sun borom mi leen bindoon mi nga xam ne mawlaahum te it mooy mawlaahumul xaq àdduna fii ku ne man na di wéy sama kilifa di laa àndal waaye kii kilifa dëgg mooy sun borom ki méngoo mbiri jaam ñi te di ko àtte moom mooy yàlla moo tax mu ne mawlaahumul xaq alaa yëgal ne lahoo ñeel na ko moom yàlla alxukuma àtte bi nee yàlla rek mooy atti wan mooy atti mbir kaw suuf lëj na lool mbir lu bari lëj na kenn xamul lu bari rek lëj na waaye yàlla mooy atti mbir yi te loolu nee yomb na ci moom lool te lu gaaw lay doon ci moom moo tax ma ne da waxoote moom yàlla asrahul xaasibin asrahul xaasibin mooy ki gën a gaaw ci way rek lañi ñi waaw yomb na ko lool mu àtti jaam ñépp ci diggante bu gàtt xisaab boobu mu wax itam mi ngi am ci ginnaaw boo xamee ne suñu borom dekkil na jaam ñëpp ba kenn ku ne ñu jox ko téereb jëfam ne ko iqrax kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka asiba kenn ku ne ñu jox ko téereb jëfam ne ko tey sa téereb jëfe ngi nii mën nga koo jàngal sa bopp am na ñoo xam ne danañ leen jox téereb jëf ci seen loxam nday jox lañ ko seen loxam càmmoñ ndax téere biñ bind jëf ju baax ji bokkul ak téere biñ bind jëfi safaan yi téere biñ bind jëf ju baax moom la nit di nangoo ci ndeyjooram téere biñ bind jëfi safaan moom la nit di nangoo ci càmmoñam moo tax dana am ñoo xam ñaari téere la ñu nangu bu fekkee nit ki lu baax képp la am ndax bu fekkee defoon na lu baax yàlla jigal na ko ba amatu ko benn téere lay nangu ci ndeyjooram la koy nangoo bu fekkee nit ki bon rek la am ndax jëful lu baax wala bu ko jëfee yàlla nangu ko woon benn téere képp lañ koy jox ci càmmoñam la koy nangoo am na ñoo xam ne sax seenub téere ci seen gannaaw lañ koy jëlee. te seeni loxo yi ci seen dënn bi lay xar jël seeni téere ci ginnaaw ndax malaayika kii dañ leen di seexlu ba duñ bëgg a jaakaarloo ñoom mooy li alxuraan waraa zahrihi am na ñoo xam ne seen téere ci waraa zahrihi ci seen gannaaw lañ koy nangoo seen loxo yi xar ci seen dënn bi bët nangu téere bi xëccaat ko mu génn door ko xool ñu ne leen iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka asiba te buñ leen joxee seen téere jëfit du tee ñu bari danañ wéy di tiit ndax bu fekkee la nga ca gis ci lu baax ci sa ci sa jëf ju baax yi da dul xam ndax yàlla nangu na ko wala déet la nga gis ci sa jëf yu bon ci sa téere ba nga def jëf yu ñaawet da dul xam ndax suñ borom jéggal na la ko wala déet moo tax du danañ nangu téere jëf yi xool ko xam li nga baaxle xam li nga bon li nga bon le du tee nga wéy di tiit ndax li baax xamoo ndax nangu nañ ko wala déet li bon tam ndax jéggal nañ la ko wala déet moo tax dañuy wéy di ànd ak tiitaange te itam li nga gis ci sa téere bi jëf muy lu baax sax xamoo fooy mujj ndax fayagoo say àq fayagoo say àq waaw ndax fay leen te àq yi ñëwul ci ginnaaw xisaab boobu ginnaaw kenn ku ne nangu téere jëfam xam la ci ne ci la ci la ci la bi door a ñëw ci la fay leen te àq yi ci la ñuy xisaab nit ñi kenn ku na ñu jox la la nga baax le ak la nga bonle ba noppi nag war a nag fay leen àq yi waaw képp ku la yoroon àq ñu dem jëli ko ci jëfam ju baax dikk jox la képp koo xam ne yaa ko yoreloon ak ñu jël ko ci sa jëf ju baax dem jox ko waaw foofu moom ci sa jëf ju baax ci ngay fayee say àq waaye du alal loolu fii la ñuy faylantee ci alal waaye yowmal xiyaam kenn ku ne képp ko yoral àq ci sa jëf ju baax la ñuy tibb ngir fay ko. moo tax ñu wax ne su keroogee da nga gis koo xam ne dafay xool ci ndeyjooram fekk fa jëf ju baax ju baree baree baree baree bare joo xam ne moo ko moom fekk ci càmmooñam ay jëf ju bon waaye bariwut jëfam ju baax moo ëpp moo gën a bari lool bam jàpp ni mucc rek lay def ndax jëfam ju baax ji daal jàpp ne ne mën na cee fay àqam jéggi ci saraat dem aljanna ndax bari na lool te jëfi safaar yi néew na lool waaye biñ tàmbalee ci fay àq lañ jël jëfam ju baax di yóbbu saa buñ jëlee ci jëfam ju baax di yóbbu rek bu ne lii di sama jëfa ñu ne ko waaw waaye nag diw sàngam yaa ko jëwoon lii wala diw sàngam yaa ko xasoon wala diw sàngam yaa jëloon alalam wala diw sàngam yaa ko rayoon mu xam bu wér ne loolu moo ko defoon ñu daal di yóbbu ñuy jël jëf ji di yóbbu di jël jëf di yóbbu di jël jëf ji ba jëf ji jeex tàkk xanaa jëfam ju baax lim doon bari bari ba di ko yéem tonni nañ ko lépp yóbbu fayee koy àq ba mu jeex tàkk te àq bu ci nekk da koy leer nañ ñi ne moo ko defoon ndax suñu borom da koy fàttali wan ko ko mu geesu gis lu mon rek nekk ci càmmoñam mu toog yëmut ci loolu waaye mu gis jëfam ju bon jooja ñuy jël yeneen jëf ju bon di ko ca dolli su ne ah lii kat du samay jëf defuma ko ñu ne ko ah, waaw waaw diw da nga koo xasoon wala diw sangam da nga koo jëwoon wala da ngaa jënd alalam te léegi amatoo jëf ju baax joo ko fayee moo tax ndigalul aji kawe ji mooy ñu jël jëfam ju di ko jox la. comme yoreel nga ko àq te amatoo ko fayee dañuy jël lu toll noonu ca ay bàkkaaram dikk sëf ko waaw nga xam ne noonu lañuy ñuy moom. jëfam ju ñaaw ji nekkoon ci càmmoñam te bëriwul sax daa mujj defub jal ba tiim ko ndax rek ñeneen ñu bari ñu yoreel àq te amatul leen fayee Serigne Touba jàngale na ko ci jawharu nafis noonu itam ni ngay gisee koo xam ne jëfam ju néew ju baax dafay néew jëfam ju baax dafay néew mu xool ci wetu càmmoñam gis jëfi jëfam ju bon bari lool jëfi jëfam ju bon bari lool jëfam ju baax néew lool am mu jàpp ne moom du mucc te xee rek lay def ndax jëfam ju bon bari na te jëfam ju baax néew na waaye biñ tàmbalee fay lente àq yi daal la jékki-jékki gis jëfam ju baax ji ñuy ñuy indi di ci sotti di dolli rek su ne ah waaw lii fu mu ko jëlee ñu ne ko kat diw moo la xasoon diwa jëloon sa alal diwa la waxoon lii diwa la defoon lii àq yooyu lañ lay delloosil mu gis ñuy sotti di sotti di sotti ba baree baree bare bare ba jaaxal ko. fekk loolu lépp ay àq la yoo xam ne ay nit ko ko yoraloon fii ci kaw suuf waaw yëmu ci waaye jëfam yi nga xam ne jëf yu ñaaw la muy ay bàkkaaram mu jekki-jekki gis tam ñu koy ni di yóbbu di wàññi waaw su laajee ñu ne ko ah waaw kat dafa am diw sàngam moo la yoroon àq sàngam te amut lu baax lum la mën a fayee aji kawe ji digle ne ginnaaw amut lu baax lum la mën a fayee nañ wàññi ci sa bàkkaar yow lu toll noonu yut ko nga xam ne noonu lañ tibbitam jëfam yu ñaaw ay baakaaram di ko tibb di ko tibb bam jeex tàkk ba mujj na léegi jëf ju baax rek la dese jëfam ju won jeex na tàkk ci faylante yàq rek moo tax fii rek la nit di naxe nit fii ku la fi nax dem rek muñal fam la koy fay ëllëg fa nga ko gën a soxlaa fii ku la fi nax di la triande muñal rek ku rëcc fi du rëcc ëllëg te ëllëg fan la koy fayee fa nga ko gën a soxlaa nga xamne ne këli boo xoolee jëfam ju baax gis nga nim bare won woon mujj na jeex tak bo nopi jëfum ju bon yok lool te loolu non lako serigne bi waxe ci jawhar dam minhu kullama qatamila liman bihim faala ma qad faala fa saara xaasiran faqiran baada saa walam yubarra suma minhum uxisa ma qad janaw min addunubi haahuna ilayhi kay yasiduhu fi ma jana léegi nag fa saara xamluhu dalooxan laa lahu mislu fatilin baada nisaahin maa lahu waaw daf ne da ngay gis koo xam ne day am jëf ju baax ju bare bare bare bare waaye ñu jël ci moom àq jàmbar yi mu yore woon mu jeex tàkk ba deseetul dara waaw te sax nee na taxul àq yi mu yore nit ñi jeex ñu jël bàkkaar ñooñu sëf ko ko ba mujj fees delleke bàkkaar moo tax ma ne fa saara xamluhu dalooxan mu mujj yanam ba dis gan waaw te lu baax lu toll ne fàttil deseetu ko ca mu dem texee di wala yaasu billahi taala moo tax mu ne suma ruddoo ila llahi danañ leen delloo ci yàlla te kooku mawlaahum alxaq te ala lahu alxukmu wa huwa asrahu alxaasibin waaw moom mooy atte mbir yi te ci dëgg rek la koy attee waaw kon it toll nañ fi ñu war a yëkkate jataay bi incha allahu